maanaam. Mhm. Ah, coono bi ñuy dund ci àdduna bi dañoo jàpp ne. nan lañ leen ko tegee ñoom ñoom ko teg seen bopp. te fekk seen baay noo seen baay yi leen ko teg ak seen yaay yi. Mhm. parce que soo juddoo sa baay utalu la xam-xam yaru la. Mhm. jàngalu la xamulu la dara ci àdduna sànne la ci mbedd mi ngay taxawaalu. ba nga demee da ngay foog ne li la naqadi nit ñi ñoo ko teg fekk sa baay ñoo échec sa baay échec ak sa yaay. <laughs> leer nga wax de. lu leer nga wax loolooy li wér tey jii gigi tey gigi gigi hmm. mii rek kaaw gi gi rek laa lay jox gigi hmm. tuddul sax gigi waaw kii la tudd waaye damay fàtte tur bi tur bu yéeme la yore sax tuddul gigi de hmm. xaaral naa la mos a jox tur bi man jàppoon naa ko mais dama ko fàtte quoi mais tuddul giir gi jox ma ñooñu kañ mooy sama liggéey man man sama waay ñooñu moom di dinaa leen wàcc si bi gis nga gigi mi nga gis nii xanaa moo gigi doom juñ abandonné la buñu abandonné waa dañ ko abandonné woon. ok kii yaayam rek la fi mu nii kii gis yaayam ak baayam ak gis butitam moom la yemale gisu xamoo ko xamoo ci loolu. kii kii ak Gaston rappeur bi doy dëgg Gaston. waa xam naa Gaston waaw. ñoom ñaar ñoo bokkoon benn néeg bi ñuy tëdd di fanaan Medina. ah. ci benn kër lañu yaroo. ok. comprendre. oui. Ngapparu Ngapparu doy dëgg Ngapparu. xam naa Ngapparu baax ya ngapparu sumul foofu la juddoo ngapparu la ngapparu la dëkk moom moom Didji léegi nga ngapparu gu mu dëkk léegi dafa amoon benn histoire bu amoon ci famem moom ñu abandonné ko comprendre mhm. léegi si la fàqee foofu ñëwoon ñëw Dakar ba mu ñëwee benn paa ko yoroon foofu noonu Didji ba ni màggee xamul ndeyam ak baayam parce que histoire la ci biir histoire bu doy waar sax taa illah moo tax dañoo war di génne seen histoire di ko teg ci taabul bi parce que ñoom léegi nag naqar non mm-hmm. yoo xamoo ñii sax gis nga ñii lii def nii nii nii nii nii nii nii mm-hmm. soo leen soo jàngatee seen soo duggee seen fii rek nga xam ne ñii lii def mérite la ci ñoom quoi parce que ñii ay nit yu yàqu lañ quoi waaw yu colossar lañ ay colossar ay colossar bu lay wër ay colossar mooy loolu ci ci dajay am ay façon ñoom ci ñoom ci ñoom am na ci ay jigéen ñoo xam ne mel na ñoom ay colossar lañ parce que ñoom ay colossar yoo xam ne ñoom tekkiwuñu jeunesse parce que lii problème mënu koo jur fu nekk nii bëgg bàyyi nee naa lu tax ñoom ñi reyante pour Ousmane Sonko ah mooy chaque jour dañoo ah. bëgg Ousmane Sonko falu pour ñu mën a ñëw Sénégal am na ci ñoo xam ne interdit trois lañ leen defal pour Sénégal ay Fatoumata Danso ay keneen ñeneen ak ñeneen ñoo xam interdit lañ leen defal Sénégal parce que ñoom bu ñu kiiwul rek bu ñu kiiwul rek bu Sonko faluwul ñoo dugg Sénégal. gigi gigi fi mu ne nii yow soo ko xoolee màggetam tubaab xam nga màggetam tubaab la takk nii <laughs> moom moom. loolu la ma ah. est-ce que xam nga ne Guigui Guigui est-ce que xam nga ne du mos a wane jabaram. laa ilaaha illallaah. Guigui jabaram bant lay doxee bant. ah. am na ci koo xam am na ci koo xam ne keneen ki nekk Italie moom te kooku te jabar ji doon saaga ndeyam moom. am na ci beneen salafi <laughs> loolu laa ree bu mënatuma koo ree. do mais gigi naa la xamal leen ci moom. Mhm. jabaram bant lay doxe maire bu màgget la takk. maire boobu xam nga li li olof njaay naan kuy tëddee sa moromu yaay wala sa moromu maam da ngay alaku sa jeexantal alakaande lay nekk ci yow. <laughs> waaw. looloo dal gigi xam dara neewu ci moom dalay leer dara. Mhm. du mag de gisoo du mag mais deretu mag bi lay deretu mag bi moo koy ŋàcc. allo. Ah. waaw ma mais deretu ñag deretu mag bi moo koy ŋàcc. waaw maanaam mère bi daal ŋàcc deretam ba kii dafa soppeeku soo ko xoolee ni physiquement dafa mel ku alaku. toog la maanaam soo ko gisee naa gan day naa day tux ay bonam wala muy naat muy wala ay assis wala muy tux ay assis. wala muy waaw. mu ne kii booy dafa dof complètement digi dof na dafa dof dafa yàqu complètement ba pare am man dama xam Sénégal xoolal Sénégal fii dama xam ku xam jigi ku ko xam ñu toog waxtaan ëpp oh, kooku yow naa la expliquer ci jigi xoolal kaam boo critiqué maanaam jigi mhm. kaam avocat moo jaxasoo turam xamoon naa ko turam vrai dama ko. yaay kii liiwur la Ngapore bu dee Ngapore rek dinaa wut ay ñoo xam dinañ xool dinañ dem loxoti fanweeri mi tegal ma ko ci taawul bi. kii doful. turu xoolal turu ceeb turu ceddo la yor. non ceddo la gëmul dara de. fi nekk nii gars nekk seen ginnaaw rek ñoom ak El Hadj Diop Salafis nekk seen ginnaaw rek. turam turam soo ko xamoon ni léegi da nga ree naaw. Mhm. tur bu garaaw sax tur bu naka dee jàpp. <laughs> mooy turu yëhur yu mooy yëhur yi jamonoy noonu la mën a demee parce que gan gi boo xoolee rek da ngay xam ni kii daray leer newu ci moom daray. moo tax nga yow li nga yàqu doyut ngay continuer di saaga ba pare daan da ngay génn mu li ma métti mu ni mu ni day génne ay secret temps yii dégg naa ko mu ni sëñ Babacar mu kabaroo mu nekk Kaolack dina gëstu ay mbiram ma ne ko def sëñ Babacar moo la gën a dee de bu fekkee foofu. ku baax ma ne ko da lay dëxëñ laa ilaha illallah la koy rey lay gars yi dañ koy xolal gars yi dañ koy dañ koy dañ koy sàngu te man li ma gën a metti mooy ñu ñàkk fay dañoo dugg ci laay fam xoolal gel boobu duggoon fa tuumaal tukk loolu sëriñu tu daaka bi waaw la ñuy def noonu la def man damay ragal est-ce que projet boobu lañ nekk projet passif boobu lañ yore est-ce que duñu fay gars yi suuf naa leen duggal boo duggee di nga am nangam nga wax lii ak lii ak lii parce que man xam naa ni boo moytuwul loolu lañ bëgg a. mun nañ la bañ a fay sax mun nañ la bañ fay sax mais dafa am ñoo xam ne. Mm-hmm. ay noonu tarixa lañ depuis seen maam yi. dafa am Sénégal moom genre Momar Mané yi waaw. waaw dafa am dafa am surtout Momar Mané dafa am ñoo xam ne deret la ci ñoom. maanaam seen maam yi dañoo xeex tarixa yi ba dee amuñu ndam. Mm-hmm. léegi ñoom seen bàyyi xeexat tarixa yi ba dee. wax naa leen ko sama benn live de nee naa leen yéen ñii. léegi ñi fi bañ ñëpp seen maam yi ñoo doon léegi ñoom suñ juddoo léegi dañuy fekk xeex ba xeex ba lan seen bàyyi de xeex xeex ba niil la ñoom mm-hmm. xamati fan lañ jëm léegi suñ gisee genre gii yi day déclenché waat deret jooju deret jooju day déclenché waat si comme ñoom mm-hmm. maa lay dégg ak ma laa dégg. jooju day waa deret ji day déclenché waat ci ñoom. mu ngi mel ne rek nga ne góor yàlla. waaw deretu góor yàlla su nekkee ci yow. waaw soo dégloo góor yàlla buy soo dégloo góor yàlla buy wax rek. da ngay xam ni waaw. day déclenché mhm. da ngay yow da ngay yëg sa bopp. da ngay xam ne kii waaw lu baax wax. waaw da lay activé da lay attiré waaw day daw sa yaram. waaw léegi ñi yoroon deretu bañkat yi nag deretu deretu <laughs> bañ yi maanaam ñi nga xam ne ñoom noonu lislaam la ak noonu mag yi. Mhm. deret jooju day des ci seen yaram yi. léegi suñu gisee genre kii yi dañuy daw langaamu ci ñoom. def seen i affaire. <laughs> lañ mel xara ni rey parce que li ñuy xeex. liñ ci àndal waxut rek. keroog rek Baye Niass nee na képp kuy njort. Mm-hmm. Baye Niass nee na képp kuy njort ci àdduna. Mm-hmm. waaw sama gars yi ziar naa leen tey mooma ah, waxtaan bi am na solo parce que su lu ñëw génne nañ fi ay mbooti secret yu bari yoo xam ni waxtaan nañu askanu Sénégal di wax dafa am ay genre yoo xam ni ay nit ñoo xam ñu nekk ci biir internet bi di manipuler daam jaamu yàlla yi nga xam ni yàlla da leen teral leen parce que nii tey jii mbégte dafa am parce que lan mooy mbégte bi mooy mbégte bi nga xam ni tey jii nga xam ni Sénégal da ko doon rêvé ci ay at ñu koy gis ci ay dëkk jàmbur tey ñu gis ko suñu dëkk muy TER bi mu war a daw service Sénégal bi di importer combien de personnes ci ay doomu aadama war leen a yóbbu di leen di leen yóbbu di leen indi chaque dix minutes benn romb chaque di minutes benn romb léegi nag ñu dem ba tey Sénégal war a commencé dund comme li yeneen dëkk yi di dund kon loolu tawféex la mbégte la ci ñun te bis ki tey tey moom dañoo am mbégte parce Sénégal dafa nekkaat beneen dafa duggaat ci beneen avancement parce que li ñuy gën a dem rek président Macky Sall di gën a avancement ñuy gën a duggaat ci beneen logi boo xam ni Sénégal dañuy gën a nekkaat ci beneen tey jii beneen Sénégal ñoo ngi ci Sénégal avancement ngala jeunes yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci côté boobu nañu warmaal charte ya ñu teg ca ca côté terre ba respecté leen charte yi ñu mel ni chinois yi ndax chinois boo koy wax jemloo fii fii lay yem nañu def suñu bopp comme ay chinois yoo xam ni ndax am ay chinois boo ko doo ko maanaam ci jukkoo ci at jukkoo maanaam dañ koo war a yor parce que nag lii ñu ñoo ko moom de suñu alal la tey jii Macky Sall day dem ba ko ko ñun keneen ba dem ba ñun kon ñun ñi suñu jëm bopp suñu wareef ñun ñoo ko war a sàmm nañu góorlu ba sàmm suñu lii suñu borom defal ñu teraanga bii tey jii ñu am te président Macky Sall moo ko indi jébbal ko Sénégalais yi te mu doon koo xam ne nag liggéeyam yëpp boolewu ko ci boole ci wax li mu gën a mënee mooy jëf. parce que gis na affaire Sénégalais yi li ñu gën a leer mooy ay wax gondiwuñu ñun dangay ngay jëf ñu gis te tey jii président Macky Sall jëf nañu gis li mu créer projet yi mu teg yëpp teg nañ ci seen bët naam nag Sénégal nag lépp mënta kii àdduna sax France Europe. États-Unis boo demee lépp mënta yenn fu dëkk àdduna foo dem am na ay pauvre am na ñi yàlla nga xam ne ñu toppee ci ngëm-ngëm suñu borom rek am na ñi nga xam ne yàlla wax nañ ñii dañu am teraanga am na ñoo xam ne yàlla dañoo wax ni dañuy ñàkk ba keroog la ba keroog ñooy faatu waaye nañuy basé wu di sawarlu di ñaan suñu borom te ñuy bàyyi te ñuy génn suñu xol yi ki ñaan ndax ki ñaan baaxul parce que nit ki nga xam ne yow yaa mu nga ni patriote la sama dëkk ma ñor yow sa dëkk nga war a mën a gën a xeex ak doomu aadama boo xam ni yow moom ci dëkk ba la nekk di laaj réew mi xeexal sa dëkk moo ñor loolu parce que sa dëkk man mun naa jógee jëlee Europe yóbbu ñaari conteneur wala ñetti conteneur ma jël yëpp ci ay bagage yoo xam ne fu ma demee mën naa kaa yóbbu si sëriñ daara te dinaa ci am tiyaaba yàlla dina ma defal ay yiw defal ma ci tiyaaba def ko gratuitement pour rek aider les gens parce que bu fekkee ni yow da ngaa am ay problème am naa koñ boo dëkk boo xam ni amul dispensaire dafa am problème hôpital bi kuy matu. da ngay jéeg saret ak yooyu ba xam ne lii nguur jegewu ko te am naa ay moyens def ko ngala yooyu mooy jaamu yàlla yoo xam ne du dañ mu ilal abat ngala jëlal sax moyen bi bu fekkee ne yow sénégalais nga patriote nga jëlal sa moyen bi nga def ko ci looloo parce que loolu moo lay moo lay jëmal moo lay jëmbal moo lay jël jëmal kanam parce que li ngay def nii parce que da nga ci am fayu ëllëg sénégalais mën ngay xam ni yow sénégalais nga mooy lii sa président def tey jii nga nangul ko bu defee lu bon nangu nañ ci riteel mais boo lu baax moom nangul ni tey lii président def lu baax la waaye yow fi nga jàpp rek nga jàpp lu mu bon la teer bi indi def avion bu bees tàkk tey ji dëkk bu nekk am na avion bi daw tey ji mu jënd avion Air France mi daw ngeen naa noo war ko xaalis mu ko jëndee dafa seer te tey ji mu ngi dem fàtte ngeen loolu politique boobu génn ngeen ci tey ji teer bi lañ toll te indi na fi teer bi defar ko ba mu baax tey ji sénégalais war cee yéeg ay ay centaine personnes yoo war ci yéeg di def ay diggante Colobane jëm ñaajo te bu njëkk ba gis nga transport dafa dafa jafe woon dafa dafa xat ñëpp dañoo dem dëkk ji Dakar te Dakar dafa xat dafa xat essence bi nag te ñëpp léegi dañoo bëgg a yor oto te ñiy dawal oto dafa bari faw muy am ay nit ñoo xam ni te ji oto yeeg njëkk njaay yeeg yooyu faaw nit yoo xam dañuy jaar ci APS bi ñii di jaar ci terrain bi mu leen di yóbbu ñii di dugg ci biisi faaw nit ki nii lay circuler moo tax boo demee Europe parce que ñii mooy ñooñu gën a ñooñu ëpp oto fop mais yenn yi ñuy jàkkaantoog ñoom ñoom duñ ko jekkoon ñoom duñu am problème boobu duñ ko am moo tax dañu war a ñun góorgóorlu suñu alal la du alal lu kenn alal lu nañ ci bay suñu weewu tànk buñ ko kenn yàqal ñun ñoo koy njëkk defaral suñu bopp buñ ko kenn defaral ñun ñoo koy lu ñu ci gis loo xam ne neexul nañ ko dina teg teg fële buñ gisee ku nar a yàq dara nañ génne loolu teg foofu te fonk lii te xam ni suñu alal la dëkk yi nit ñi nekk ñoo dëkk yi nit ñaa ngi ci di ci yéeg ñun miis nañ ko te mesure yi ñu leen jox respecté leen mesure yi respecté leen ko da parce que loo xam ne ay courant moo ko dar moo ko wër boo respecté wul mesure yi tey jii mën nga ci am jafe-jafe joo xam ni tey jii say mbokk dañ lay ñàkk te foofu pour ñu sauver la pour ñu sauver la problème bu rëy la ay ñaata vol parce que bu la dóoree da ngay faatu moo tax ñun ñëpp fan ñu jaarloo nañ fa jaar nañuy yéeg ci kaw di jaar respecté ko buñ dugg di def yenn ñenn yi dugg sénégalais yëpp na lañ ko defal amul sàmba amul demba mais nañ ci war maar am na yoo xam ne li foo war a dugg moom bu fa dugg nañ fexe góorgóorlu ñun suñu alal la tey jii président Macky mi ko defal tey jii day dem ba ko fi. muy keneen kiy ñëw mu koy continuer kon war nañoo am góor góorlu doon ay jàmbaar yoo xam ne ëllëg ëllëg lii nii mu doon way bu dul fay parce que lii way la ci Macky Sall parce la première fois président boo xam ni ci ci xam-xamam ak ci gëm-gëmam ak ci ay idéem ak ci ay jàmbaaram mu dem tegal projet bu toll nii xool ñenn ñi respecté gu ñu respecté corps ndax gis na fi ay jëyee yu ne ndax